mbokki amateurs yi Ndiaye production mi nga xam ne journée bu mu tëgg amateurs yi duñ ci am déception bëgg di dox ci logique ku bégal yi moo tax mu joxaat leen rendez-vous le 8 janvier 2023 ci arène nationale daal di ñuy indil combat yoo xam ne boo ci seppi woon mu tëj làmb ji ne dama koy bégalee amateurs yi kaddu laa leen koy jox ndax seeni xol féex ma ne ko Fallou Ndiaye limal ma say combat mu ne ma Boy Diop 2 dana laaleeg bu Diar Gibson dana laaleeg Boy Bankas Karbala dana laaleeg Pape Dianka Arobas dana laaleeg Ada Boy Bawol caatu yoof muy xale bi nga xam ne yoof ak ngor ak wakaam am ci moom fierté mu war a jàkkaarloog Bill Désert muy gone gi nga xam ne làmb yépp ko nangul boo demee ca lutte simple mu fay toj nga ñëw ci lutte avec frappe muy wane boppam muy gone caaro yëmbal Malika Buun foofu taxaw ne Bill Désert ñu ne la champion ngoog ñaar ñii la Njaay production dajale ci arène nationale le 8 janvier toftal ci ay combat préliminaire làmb ja toj Njaay ne loolu moom mooy première édition drapeau Awa Baldé nekk femme d'affaires nekk influenceuse ji nga xam ne ñi mu bàyyi nañu ko xel ndax njàmbaaram nangoo liggéeyam am jomam ñu daal di koy dippe bile drapeau ñu ne sponsor ya ñu ngi ànd ak Sipsi Cracks ànd ak Ndiaye Global Business ànd ak Guèye et frère ak Kewel Info ñu ne nag ça sera en direct et en exclusivité sur seen affiche point ku bëgg a seetaan lamb ji pay-per-view la xaar ñu ci seen affiche point com daal di gis lu mucc ay kon mbokk yi bés baa ngoog bu nu ko kenn nit